te it di am contentement bu baax di leen woo suñu bis bi nga xamante ne moom la Mbackou Mbaye dëgmal di feete anniversaire am di si woo mbokki waa Yoff yëpp di leen wax ne Mbackou Mbaye seen am la kon bu xewlee kenn waru fee jiitu waa Yoff may ñaan rek ngeen ñëw niir ñu jàpp si bis bi bu baax a baax a baax ngeen mobiliser wu ngeen ñëw jàppale ñu si bis bi incha allah le le 24 le 25 di yomba dina neex trop macha allah te bëgg nañ si ànd ak yéen incha allah. salaamaaleykum mbokk Yoff waa ñu ngi nuyu suñuy yaay di nuyu suñuy baay di nuyu suñuy mag di nuyu suñuy rak waa dama xam ne Mbackou moo xewle te lépp si Yoff la te Mbackou Mbaye doomu Yoff rek moo fi ne kon bu Mbackou oowee yaakaar naa kenn waru la des artistes Yoff yëpp ñu ngi leen di oo ñii tamit xam ne ñoo njëkk a jiitu si mbàkku mbaay muy mag am na ñoo xam ne tamit nekkandoo nañ fee ñu leen di oo suñu bis bii nag nan ñu yiir yërëm ñu ñëw magal ñu ndax ñun ñoom rek lañ am te lépp yoof ñu ngi ñu léewuñu kenn daal na ñëpp ñëw ignoreew ñu kenn ku fi ñëw rek ñëwal def ko sa bis ndax ñun ñëpp ñëpp ñëpp lañ yemaale wax dëgg yàlla ñu la jour ñu ñëpp la 25 ñu ngi oo fi ñu leen di oo si kàttanu yàlla foofu laaya euh, ñu di leen invité si suñu festival suñu anniversaire ñun waa Mbackou euh, di leen oo yéen waa Yoff yëpp yéen doomi yëpp képp ku juddoo Yoff ñu ngi lay oo pour nga jàppale ñu suñu bés bi ndaxte tamit amuñu lu dul Yoff amuñu lu dul suñu dëkk te ku nekk sa dëkk ngay ndamoo waa ñu ngi leen di oo yéen ñëpp waaw di oo sëwru ñaŋ ñang baaloo maa ngi lay oo di la invité sama anniversaire ñun waa Mbackou Mbaye bëgg ngeen jàppale ñu nag bu baax a baax yéen waa Yoff ñu leen a jox suñuy loxo ak suñuy kàddu pour ngeen jàppale ñu bu baax si li ñuy oote wasalaam merci waay. bon salaamaaleykum waa Yoff salaamaaleykum waa Tóngoor quartier yëpp yi nekk xam ne ñoo nekk si Yoff Euh, di leen wax rek que ni invité na leen yéen ñëpp suñu programme muy le vingt cinq décembre xam ne xale yi ñoo ko moom muy waa Mbackou Mbaye gis nga liñ def fii léegi nii bu bis baa di nga gis lu gën a pire lii ndax lii dañ si cof rek bàyyi di invité yoof gém nag koo xam ne mu ngi may dégg di ma seetaan man lay invité si suñu bis ndax bëgguñu kenn mer ku fa ñëw nag bu dee am nga stress dinañ la ko dindil bu fekkee daa amoon loo manqué si àddina dinañ la ko dindil parce que gaayaa ngi fi ay nante leen xam nga donc venez nombreux daal loolu laa mën a wax mag ak ndaw ñoo ngi invité ñëpp ñii nga xamante ni nag artistes yaa ngi nii te des na ñeneen ñaa ngi ci biir dama bëgg nag yéen waa Yoff ngeen ñëw teewe lii suñuy mag yi suñuy tante yi suñuy yaay yéen ñëpp ñu ngi leen di o si la 25 décembre nga xam ne ñun seen doom ñun ñoo ay dañu bëgg yéen ñëpp ngeen teew. ñi fi jaar wax nañ ko ñi ngeen di gis ñu ñooy tout tànk yi donc ñooy révélation bi parce que Mbacké Mbaye nee naa leen c'est une école la. amul y a dul jaar ren la def ñoo chapeau donc bu ñëwee c'est parce qu'il y a quelque chose On ku xam-xam ne ñun si dëkk bi rek répété donc théâtre di sawar yi dañuy déranger te xam nga dëkkandoo dafa am ax te bëgguñu ax boobu loolu moo ñu indi donc bés la vraiment ñu ngi si comme ni ko waxee rek ah di si invité ñëpp ah ñi nga nee nañ seen plus foor ñii ñu jël tuddee leen bés bi ah bu kenn des gannaaw nañ def massif ñu ñëw assister affaire bi su ko defee ñu bëggal leen bëggal leen ñëpp xale lu ngeen.